maa ngi ñëpp ak maa ngi baalu ñëpp ak dama julli ba pare di seedaloo yàlla sama borom kàddu yi bëgg a yëkkati di ko wax ak Ndoye Bane Ndoye ah ay nit feebar nañu ay at toog ci seeni chaise yàlla boole leen ak xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla yëkkati leen ñu dem doxi seeni soxla ànd ak wér lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ay jigéen ñu toog ay at sëy taxaw mënuñu am doom yàlla boole leen ak xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla may leen njaboot ba ñu jël seeni njaboot tuddee ko xaas lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ndoy baan ay nit yu dem ba mag mënuñu sëy yàlla boole leen a xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla may leen ay borom kër lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas wala xalaas moom lu rafet du fa jàll wala danga yàqamti moo tax nga dem jubale ci Fambaye pour bëgg a daaneel xaas dafa am loo xamante ne nit ku ne da ciy sédd yàlla sunu borom ndax nag lii du mujj de ñëppay dee dee day am de wallahi lazim te ku ci nekk nag na xalaat sa bàmmeel ndax sa jëf ju rafet rek la fay fekk ak bi nga teg sa morom nag sa morom rek la ko mën a baal Fambaye nag yow man mënuma la wax dara wax dëgg fa yàlla ndax nattu bi la yàlla teg te képp ku sa xor rafet rek mi ngi lay ñaanal nga jug foofu nga toog waaye xaas li mu ko jaral pour nga jug wallahi lazim nit yu bari jaral na leen ko pour nga toog foofu ngir gàcce xaas waaye nag yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ yàlla mi ngi ànd ak gor ndax nag wéet gore wéetaliku gore maa ngi jéggalu ñëpp nag bu dee kàddu yi rafetul maa ngi maa ngi jéggalu ñëpp wax dëgg fa yàlla xëy na damay gor rek di xool tey ji bu doon jabar dina bu doon jëkkër dina amel ak jabar ci julli ak wird ma xam ne kon xaas dina ma amel ak ndax ba fajar du mën a sax waxtaan ak man ndax ji nekk ci liggéey doomu aadama yi rek kon nag sant yàlla baal leen ma ak bu baax a baax a baax maa ngi jéggalu